ngi nii ñi nga xam ne kay ñooy jàngalekat yi nekk ci daara ju kawe ji gis nañ ne ñi nga xam ne kat ñooy étudiants yi ñoom ku ci nekk daal ma ngay ŋawti ŋawtee ne université lañ ko ubbi gouvernement bi daal moom ne daal da koy ràpp tëj ndax gis ne kat wàllum kaaraange gi ci la kon lànk ba tëdd ci naaj wa ñi nga xam ñooy nguur gi ci jàmmarloo bi nga xam daal dafa mel dañ ko nar a séq ak ñi nga xam ne ñooy way jàngalekat yi wala ay universitaire waaye gis nañ ne lii nag moom dogal bu nga xam ne politique lekk ko lal explication yi nga xam ne sax joxe nañ ko wala sax la ko sabab lu tax ñu daal di tëj ñi nga xam ne mooy euh, université bi ñu bëree bëri bañ ko déggee daal dañoo sax tiit kon ama ñoo xam gis nañ ne jëfi tappale la joo xam ne baaxul ndax lii nag moom day daal di yàq lépp lu nga xam ne liggéey la te ñu nga xam ne defoon nañ ko fii ci Sénégal waaye tam bu fekkee ne dañoo bëgg a gëmloo ne cours en ligne yi nag moom baax na ci wàllum enseignement présentiel ñi nga xam ne ñooy recteur ci daara ji kawe ji nga xam ne dañu ko daal tëcc ñu bëri gis nañ ne loole kat waxe picc la te loolee taful fenn kon dul gu nu dugal li nga xam ne mooy jumtukaayu xarale yii ci li nga xam mooy ay module ci wàllum tàggatu bi day tax rek université yi daal di basculer naam ci ay coppite lu ci mel ni LMD université mi nag moom dafa mel ni ci yàqu jëm ndax ca anam ya nga xam ne kat ci lay daal di yaa jàngalee loolee baaxul kon ña nga xam ne ñoo sorloo Ndakaaru ak ñoo xam ne kat am nañu ordinateur wala sax ñoo xam ne am internet rek jafe-jafe la waaye lool loolee gis nañ ni sax lu met la ca ñoom ndax ñooy jàngalekat yi mënuñoo jàngale ñi nga xam ne ñoom amuñu dara ci jumtukaay am ñoo xam ne sonn loolu lañ def am ñoo xam ne nag moom xamee su ko sax kon ñu bëri yaakaar ne kat bu fekkee dañoo bëgg a daal joxe xam-xam foog ñoom ñu daal di teew jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war daal di yaa dékku naka nga mën a yaakaaree ne bu fekkee danga nga soriwul mën na jàngal ndax gis nañ ne am ci ay jumtukaay yoo xam ne ndax bu fekkee da nga sori ndax loolee dina xaj sa bopp déedéet kon ñàngale mu kaw mii bu ñu deful nank daal nërmeelu nërmeelu bu nga xam ne kat laataa mu cee jóg dana yàgg lool kon woy jàngalekat yi nag ñoom ñu nga yuuxu wallu waaye dafa mel ni kat nguur gi moom daa gumba taxlu ndax bu fekkee ne politique bi nga xam kat moo ci lalu loolee tax na ba jàngale mu kawe nag moom daal di nërmeel ba faw fii ci Sénégal nag moom ñu bëree mooy yaakaar ne njàngale mu kawe mi faat na ba faw ak université yi nga xam ne tëj nañ ko loolee tax na daal ba ñu bëree bëri amatu illaay sax sol seen daal nan dañu dem jàngale ji